le kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral enquête quotidien daal nay dikk ñun nag ndiki tey jii sa assemblée nationale lu jëm nag si ñu tas li nga xam ni mooy au conseil des collectivités territoriales ak i conseil économique social et environnemental yéegle kaay bi ñu xamal ni gis nga test bu njëkk bi nag fi mu ne nii daal nay jàllale ndax commission des lois bu assemblée nationale moo mujjee nag daal di rejeté li nga xam ni mooy projet de loi bi porté nag dissolution au conseil des collectivités territoriales ak i conseil économique sociale et environnementale te plénière bi nag di ki tey jii dana tàng de dara du yomb Doudou Wade ay kàddoom si enquête quotidien nag gis nga nag bu fekkee nag kon nag ni loi bii du jàll ça ne passera pas moo taxit waa APR ñu ngay woote dara du yomb les échos yéen a kaay ne ko dara du yomb de ndax boo bëggee dégg-dégg projet de loi bi nga xam ni la ko sabab te tax koo jug dëgg nag mooy daal nu dindi tey jëlee fi ACCT ak CSE kon nag loolu mu jul sotti ndax gis nga samedi bii moom joomaay nag daal nay laj te boo moytul ndiki tey jii ab gàcc moo ko a rey de ndax kon ndorteel ga nag xaar li nga xam ni mooy résistance bu saf-sàpp nag tey nar a saf kaani benn bokk yaakaar yi yéegle kaay bi ñu xam ni moo taxet ñoom député ya ndiki démb nag ñu ngi ak ndak la ñu war a doxalee ndiki tey jii sa assemblée nationale Ousmane Diagne di jëwriñ gi ñu dénk wàllum justice fii si réew mi kon nag tey moo war a ñi nga xam ni ñooy député ya sa assemblée nationale ay kàddoom si les échos na gis nga hé attention nag man mi nii magistrat de vox populi na ko loo si mënta dégg jàppal ne plénière bi nga xam ni moo war a am di ki tey jii sa assemblée nationale yëglekaay bi ne ko nag moo tax yëglekaay bi di bi dafa a mooy barrage bi ah dama xam ni commission des lois samedi bi weesu nag la daal di rejeté gannaaw fukki baat ak juróom-ñaar yi nga xam ni kon nag waa APR ñoom ñoo ko am sa assemblée nationale ña des am fukki baat ak ñeent la doxoon nag si projet de révision bu constitution yaay fi mu nii mu jul jàll de point ak na ko nag kaay ma la nag gis nga revanche benn bokk yaakaar kon fi mu nii moom la nekk di gis nag si kaw yeewu askan wi ndax su gaañi taxaw temm la def nag ngir jàkkaarloo li nga xam ni mooy pouvoir bi fi nekk Moussa Balla Fofana na ko kaay ma la nag gis nga au conseil des collectivités territoriales dana am leneen lu ko wuutu nag te juróom-ñetti pôle territoire la nag Abdoulaye Sow na ko su ma delluwaay Sonko ak kon nag daan nañuy suul li nga xam ni mooy HCCT ngir taxawal nag yeneen institution moo taxit nag waa benn bokk yaakaar kon fi mu ne nii d'accorduñ benn yoon nag te tey jii daañu fas yéene nag jàkkaarlool ki nga xam ni mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllum justice di Ousmane Diagne l'observateur ko gis nga nag coow la assemblée nationale bii ma ngay bëgg a ëpp loxo de ndax lu musul am nag moo am yéegle kaay bi dañoo xamal nii gis nga nag gulleet nag ab projet de loi constitutionnel ñu daal di koy rejeté nag sa commission des lois lii mës ta am yéegle kaay bi daal di taxaw ñun nag ci Air Sénégal ak ay plan yu yees yi nga xam xam ni kon fi mu nii gaa ñi fas yéene nañ koo li nga xam ni mooy juróom benn ligne yu Air Sénégal tàmbalee ko nag ñaar fukki fan si weeru septembre bii sa atum 2024 waaye nag gis nga daañu amal ay révision si ay flotte ak i évaluation yi nga xam ni kon top management la journal bi dañu xamal ni am na si ay contrat de location yoo xam ni kon nag dafa nar a takk ak Carlis Aviation waaye lu jëm nag si wàllum fay bor bi nga xam ni kon nag ma ngay toll nag si juróom benn milliard si franc CFA suñu koppar ak audience bi nga xam ni kon nag war nañ koo amal nag si kanamu tribunal bu commerce lu nag si wàllum série de meurtre faat gi ñuy faat bakkan ak insécurité tiit bi nga xam ni askanu Sénégal moom la ñu nekkee les échos yéen a kaay Walf Quotidien Vox Populi Sud Quotidien lii Quotidien journal yëpp nag fi mu ne nii benn kàddu gi la ñu indi de jëmale ko nag si sortie bi nga xam ni kon ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine daal la koy def lii Quotidien na ko nag kaay moo xam ne affaire chiffre yi nga xam ni moo nekk nag si insécurité bi moom ministre bi nag daal nay wax lépp nee na fukk ak juróom benn si ay meurtre daal lañ koy nemmeeku nag diggante juillet ak lii moo tax nag waa police daal di amal nag ab bu am solo ndax lu toll nag si ñeenti téeméer si ay arrestation kon nag fi mu nii daal dañ koy nemmeeku nag si week bi Jean Baptiste Tine ne hé la waaye génn leen dem dox seen soxla les a kaay di dikk ak ñu nag si xëta bu njëkk di ñu indil annonce bi nga xam ni kon nag jëwriñ ko ci dénk biir réew mi intérieur laa wax Jean Baptiste Tine ne nga nag lii am nii a fa ndax fukki meurtre ak juróom benn la ñu nemmeeku nag si ñaari weer kot moo taxit nag gis nga état bi

ay matukaay am solo yoo xam ni daañu ko jël de ngir nga xam ni mooy violence ku tar gi ñuy nemmeeku fi si réew mi ndax lii afa ñaaw lu ñaaw tey xewee si réew mu Palestine moo taxit ab manifestation boo xam ni ngir dooleel tey jàppale ñi nga xam ni mooy waa Palestine premier ministre Ousmane Sonko nag daanaka ab la génnee nag jëmale ko si waa Israël vox populi dañu ni kon na ko yëkkati gannaaw ba mu teewee manifestation bi nga xam ni ñu ngi ko doon amal samedi bi weesu nag sa grande mosquée Ousmane Sonko ne gis nga nag pare nañ ngir taxaw taxaw si wetu waa Palestine ngir jàppale leen nag ci xeex bi nga xam ni kon nag moom la ñuy xeex jamono jii te kon waxtu la ñu war a liggéey dëgg-dëgg nag mooy ngir ñu indi ñu sori nag lool si wàllum politique ak waa état Israël ndaxte ñii baaxuñu laas quotidien na ko dëgg la de Ousmane Sonko kay waxtu wii boo bëggee dégg bi nga xam ni moo am nag sa diggante ak Israël ak Palestine la muy sàkk mooy ñu daal di sori ak réew bu Israël ndaxte ñii duñu ay ni sax réew mi quotidien na ko nag moom Ousmane Sonko daal nay wax ñaawteef yi nga xam ni kon nag Israël moom la nekkee sa biir Palestine te dafa jot nag ñu arrêté tey daqal li nga xam ni mooy barbarie humaine bi nga xam ni ñu ngay faat faat gu ñaaw faat gu métti jullit métti nag mooy ñenn ñi si yi nga xam ni kon nag patt lañ may te ñii ay complice lañ bés bi le jour dañuy indil nag kàddu yi nga xam ni Ousmane Sonko daana koo yëkkati nag sa manifestation ba ñu doon amal ngir soutenir waa Palestine premier ministre Ousmane Sonko ne naa ñu prôné nag li nga xam ni mooy politique d'isolement Israël waaw lii mooy dëgg tey nag dénoncé li nga xam ni mooy waa ONU Ousmane dafa mel ni sax moo ñu gën te fa demee ñoom musulman yi bëri de waaye seen taxawaay ak seen dëgëraay ngir xeexal waa Palestine fi mu nii kenn mënu ko natable yëkkale kaay bi ñu xamal ni gis nga ni ñu ngay organiser nag ay coupe du monde ak financement banque pour juif yi te dafa ñaaw lu ñaaw dëgg l'observateur daan na def ab taxaw seetlu gannaaw enquête bi nga xam ni am na ci faat gi ñu faatoon Aziz Dabala ak Waly yëkkale kaay bi ñu xamal ni ab traumatisme dëgg nag ak tiit moo am si dëkkandoo yi fa crime bi amee woon naa la fa ñu faatee woon fi nga xam ni mooy Aziz Dabala gaa ñi na la watuñ ba yendoo ndax ñi nga xam ni kon ñoom ñoo dëkkandoo yi ñoo ko xamle ne boo bëggee dégg-dégg daal waxtu wii kenn mënatu fee naraw ba yendoor kenn tranquilletul ndax si tiit ak njàqare dëgg nag la ñuy dund ka nekk si tiit ak njàqare dëgg dëgg nag ma nga sa duwaan war a soog l'observateur daa ñuy indil nag ab histoire bu bétti boo xam ni comme nag ab benn femme bu tàqalikook sagom te ndaysaan handicapé la de teg si nag mënul wax moom la ñu def ab jëf ci ñaaw mu daal fay jëlee ab wann lor violé te lii ma ngay xewee nag sa duwaan war a soogi ki jëf-jëf ci ñaaw ji nag fi mu ne nii kenn gu ko de moo taxit nag moom yaa ji fi mu ne nii mer ba futt nag waaye tamit tiit ak njàqare la nekkee jamono ji ndaxte ab doomam la ñu violé nag ba noppi daal di koy wan loolor moon tey dee doom ji dafa tàqalikook sagom ñu ne dee tawaay mu handicapé mën ta wax te lii dafa ñaaw baax na rek ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah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 sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps